Moi, je suis gaucher normal, mais vous m'obligez à utiliser la même plaque. Voilà. Thank you. Obrigado, meu waaw. Monsieur le préfet du département de tivavon monsieur le sous-préfet, messieurs les maires de l'ensemble des communes ici présents, monsieur le maire Magaye Ndiaye, mon ami et frère, et compagnon effectivement de lutte, Je voudrais tout d'abord saluer toutes les populations gërëm ñi fi teew ñëpp particulièrement jigéen ñi ni ko sëñ Malick Kandji waxee senegal jigéen ñi jigéen yu jàmbaare lañu nu mu ko waxee ci daara yi ci matt geeg petrol beeg yeneen yi ngeen di indee noonu ngeen mel ci politique bi mel ko ci koom gi mel ko feneen ak feneen ak feneen loolu tax président de la république diggoon leen que bu jëlee nguur gi dina leen bàyyi xel te dinañ ci dellu si def naa ni bàyyi na leen xel di nuyu chef de village ak imam yi fi nekk Sénégal dëkku diine la noonu la ñu yàlla bindee diine yëpp bokk nekk benn te dégg ngeen li président di wax ci mbirum terrorisme bi ak effort yi ci chef religieux yi chef coutumier yi ak ñëpp di def di fàttali rek ke bi mooy ñaareelu bés bu ñu tàmbalee tournée boo xam ne ci Saalum lañ ko dooree démb jaar fu bëri tey ñu dugg ci Thiès di ko jeexalee fii en attendant yeneen bés peut-être ci ñaari ay bés yi nar a ñëw ñu dem feneen ci région de Fleuve wala vers fin de mois bi incha allah du août bii nar a ñëw ñu dem ay Kolda ak li waral tournée bi benn mooy nemmeeku programme yi ñuy tëral ndax mu ngi jaar yoon ndax wax ay milliards tudd ay projet ñu defal la ci ay kayit ne la lépp jaar na yoon fekk yow wàcc si woo ci terrain bi ànd ak ñi nga war a àndal ñu saytu ndax lépp tegu na ci yoon loolu dina indi njumteeg erreur loolu tax ñëw nañu tey effectivement am na fu ñu gis ay tolof tolof te def naa ni maire wax na ko dinañu tëje ci dakaar waxtaanee ci ñuy seetaan télé yeeg rajo yi gis nañu que lu ëpp weer toog nañu ak premier ministre def conseil interministériel ba boo xam ne dañ ko jagleel ci mbirum électrification rural bi ak jafe-jafe yi am ci courant boo xam ne yegsi na ba pare abonnement bi bañ ci tegu ndax dara yéesul gouvernement di Sénégal dafay effort yu bëri wut ay milliards def jëlay entreprise ñu liggéey ba liggéey bi mat maanaam courant bi ñëw ba ci biiru kër gi fii li ñëw ba ci biiru kër yi transformateur yi tege ñu ne duñu branché ndax lii wala la ci yoo xam ne lu ñàkk fayda la lu ñàkk fayda yooyu nag dinañ toog Dakar xool ko saytu ko ak ñu ko war saytu gannaaw bañ ci kilifa yi muy président de la république premier ministre joxe ay digal ay ay tegtal yu leer c'est pas effectivement normal que ñu bëgg a fayeeku ay comme ni ma ko gisee nii 5300 francs par mensuellement pendant xaw ma 10 10 ans xaw ma yan base loolu c'est pas normal et dama bëgg aussi que à partir de maintenant dinañ def enquête bu gën a approfondie parce que ministre mënul dem fu ne xëy na DG mënul dem fu ne waaye dinañ yebal équipe woo délégué gestionnaire délégué ak ñeneen ñëpp toog ak ñoom xool pourquoi loolu li président wax te alalu Sénégal moo ci dugg lii ñuy ngeen de gis du alalu privé du alalu SS2E du alalu SSER gouvernement wu Sénégal moo leb mooy alalu askanu Sénégal moo ko liggéey de A à Z donc du ñu nangu am ñoo xam ne dañuy ñëw bugg ci def ay gàllankoor ba nga xam ne du jot ci population bi te pendant ce ñun ñu ngi fay xaalis bi donc loolu def naa ni dinañ ko faj incha allah mooy problème ñuy gis ci fi ñu jaar fi léegi feneen fépp foo xam ne dañ fa defoon ay soi-disant délégué général gestionnaire délégué transitoire te ñoom ñu seen liggéey maa ngi koy wax pour la dernière fois les services nañu jël matuwaay yi Senelec branché def rab abonnement direct maanaam population yooyu mooy fu ñu romb par exemple fee ci département ci mais kii commune Touba Toul mais ñooñu nañu dem abonné directement Senelec mu jeex wax coow lu xam ne nag contrat bi mayuñu ko dina ñu xool pexe yoo xam ne abonnement bi dina xawa a nuroog bu Senelec loolu mooy dëgg te loolu dinañ ci taxaw suñu kéem kàttan président la république joxal na jox nañ ci ay ndigal premier ministre jox ci ay ndigal je répète léegi mu ngi des ci sama gars yi ma toogal ak man mii donc dinañ ci maa ngi ne démb ba léegi ñoo ngi wër parce président que président de la république dafa dige woon ak askanu Sénégal mu ànd ak gor ñu mel ni Magueye mii Ndiaye xam ne indi na fi président tangi opposition dafa dige woon bu ma jotee réew mi naa nekk ci bëgg-bëggu ak soxla askan wi def naa ni mbirum courant bi rek exemple la ci li fi maire Magueye lim doy na exemple lu mu fekk quatre village ci loo xam ne 1960 ba léegi ba 2012 maanaam 52 ans juróom fukk ak ñaari at mu fekk fi ñaari village yu mu électrifié moom li mu nekk maire ba léegi rek romb na ñeent yooyu loolu def naa ni am na lu muy firnde ni engagement yu président jëloon que dina yokk électrification rurale bi dinaa ñëw ci piste de production yeeg yeneen mais dina yokk électrification rurale ñu ngi ci yoon wi dama ci jox ay firnde yu simple 1950 wala d'ailleurs avant indépendance ba indépendance ba 2012 village yu ñu électrifié woon ci Sénégal mu ngi toll woon ci ñaari junni yu manqué tuuti ñaari junni yu manqué tuuti mboolem village yu Sénégal buñ ko waree président de la république ñëw 2012 2016 bii ñu toll teg na ci moom junni ak ñaar téeméeri village junni ak ñaar téeméeri village maanaam ci ñeenti at liggéey na lu ëpp xaaj lu romb xaaj lu ñu liggéey depuis Sénégal am électricité ba 2012 bala indépendance ba indépendance ba 2012 2000 villages 1900 et quelques villages la ñu électrifié woon président de la république ñëw noom en quatre ans ñu électrifier mille cent quatre-vingt-douze mille cent quatre vingt moo tax magay mu leen wax ni que en quatre ans il a pu électrifier plus que lu ñu électrifié woon de 1960 ba léegi mun naa jox exemple yeneen commune ci yeneen région parce que moom magay du parce que dafa ànd ak président de la république ñu baral ko loxo président dafa ne jaaduwul Sénégal gu ñu nekk amay département yoo xam ne wala ville yi amay taux d'électrification dans les villes urbaines électrification urbaine de à peu près soixante-dix à quatre vingt pour cent nga dem ci monde rural bi moins de trente moins moins de vingt-quatre pour cent la ko fekk fekkoon maanaam téeméeri dëkk yoo gis yu yées ñaar fukk ak ñeent ñoo ci amoon village te même loolu moo ci amoon électricité te ci même loolu da ngay gis yu gënoon a bari ci dëkk yooyu wetu Dakar la ñu bokk woon ak Thiès ak yu mel noonu waaye boo demee wetu Kédougou koldaa Sédhiou da ngay xool téeméeri dëkk yu ne lu yées ñeent ñoo ci amoon courant mu ne problème boobu da koy régler te mu door ci lu am solo ci naka la ko regle bu ma nee woon dama leen fi liggéeyal programme yëpp du jeex mais dama lay ci juy jukki jukkil yenn yi rek tudd leen programme bi nga xam ne moom moo fi indi courant yi te ñu jaaroon ci yenn village yi di ko seet programme bu ñuy wax programme Aigné phase 2 24 millions de dollars lu ëpp 14 milliards et quelques de nos francs lu yées tuuti 15 milliards francs CFA loolu lañ ci dugal moom moo tax ñu électrifier ay dëkk yu nekk ci tund gii ñu nekk nii programme boobu jeexul dina am luñ ci yokk ci fan yi ci la ñu nar a électrifier pàtte bii ñu te ñu nekk tey extension programme indien boobu lañ ko nar dugal avenant bi signé nañ ko ba pare xaalis bi mu ngi toll ci 3 millions de dollars dina am yeneen à peu près 30 villages yuñ ci dugal te loolu pàtte xewe dina ci bokk beneen programme boo xam ne commune de Notto Gouye Diama dinaa ñëw ci yeneen commune yi monsieur monsieur le maire déglu leen ma rek a yàkkam Ousmane ma géey bari luñ ko loxo de ñépp la ñuy donc am na beneen programme bu ñu tuddee 212 villages boo xam ne ci fan yi dina démarrer incha allah signé nañ ko ñu ñoo xaatim contrat yi sept milliards et quelque lañ ciy dugal deux cent douze villages la trente départements dinañ ci bokk département Tivaouane nekk na ci te dina am ay villages yoo xam ne ci fii ci Noto dinañ ci bokk ñaari programme yi ma boole deux cent dix huit villages yi ak extension programme phase indienne bi village bu mel ni Ngik Fall dina ci bokk paxam kuy dina ci bokk paxam kuy un ak deux dina ci bokk ak jàll ak pulun ak fulum ak luxus waa luxus nag moom def naan waaw luxus nag dañ leen waroon bàyyi ñoom ñu luxus courant bi rek. loolu mooy programme 218 villages ak phase ak euh, programme énième cent 2 218 villages 7 milliards beneen bi wax naa ko ke lu yees tuuti 15 milliards. am na beneen programme bu gën a yaatu boo xam ne 60 milliards lay doon. boobu dinañ ko aussi am na luñ ci xaw a mosal tuuti waa lat mengeeg yooyu démb mais dinañu gën a yaatal mbir mi gën ko fësal bu ñu demee côté Kolda ak côté Kédougou parce que dafa am dëkk yu bari ci Sénégal dañu xaw a ruqe wala xaw a sori ligne haute tension yi fu mel ni ay Médina Yoro Foulah ay Sédhiou yooyu boo waxee ay Salémata boo waxee ñu ne leen yéen da ngeen sori ligne haute tension yi pour indi fi courant day jafe lool village yi président ne loolu jaaduwul luy pexe pexe bi mooy indi lu ñuy wax dorsal maanaam wut ay ligne yoo xam ne haute tension la day dem dugg ci gox yooyu dugg ci axe yooyu yëpp comme ça ñooñu pour électrifier leen du jafe dinañ jagleel lu ëpp 20 milliards ci programme 60 milliards yooyu pour def dorsal yooyu maanaam genre ligne yu rëy yi nga xam ne day dem di yóbbu courant bi ci gox yooyu bu ci bu ko defee gox yooyu ma xoon sànq ni wala région yooyu wala département yooyu ma xoon sànq ni pour cent de taux d' électrification rurale la ñu am lu ñu yées yées ñu dem ba ñoom 30 pour cent xaw a dab ñeneen ñi nga xam ne ñoo féete kanam parce que magey nee na moom léegi mu yegg si 100 pour cent donc bala moom mu yegg si 100 pour cent jaadu na aussi ñu nekk 4 pour cent dem ba 30 pour cent wala 40 donc objectif président la république ci loolu mooy. bala 2017 fekk au moins 60 pour cent d'électrification rurale ci Sénégal en moyenne mais fekk gën gaa yées département bu yées ba yées ba dellu ginnaaw di nga am au moins 30 pour cent ci biir loolu la ne comme liggéey bi dañ ko war a baral te sama ambition ak objectif dafa bëri ma tegaat beneen programme boo xam ne PUDC boo xam ne 42 milliards la bokkul ak 60 milliards li ma leen li ma léegi PUDC bi 42 milliards yi c'est pour électrifier téeméer ak juróomi village 405 villages à travers le Sénégal ñeenti téeméer 405 villages ñeenti téeméer merci euh, village te liste village yooyu ku ko soxla aussi muñ la ko jox benn benn comme 60 milliards yi villages yu ñu ci nar a électrifié dinañ ko def ci d'ailleurs surtout Azer ñu xam benn benn parce que li olof di wax weddi gis bokku ci maanaam bu ñu tuddee village bi tudd commune bi tudd ñaata lañ fa dugal ci électrifi électricité bu boobaa ku xam village bi bu wootee dina xam ndax lu ñu wax am na wala amul bu boobaa ñuy wax ni que milliards yi ñuy dégg ay léeb kese la wala ay chiffres kese la dañ xam ne milliards yi am na réalité parce que fa ma demoon démb ci Saalum ñu taal fa ay dëkk yu mel ni cuubeen taal courant bi bokk ñu dëkk bi taal courant bi <laughs> ak Missira ak Medina Leyti yooyu ci beneen programme boo xam ne président de la république moo ko dooroon 2015 fukk ak juróom milliards ñu tudde ko PPP partenariat public privé boobu daanaka mu ngi jeex taal nañ ci euh, branché nañ ci lu ëpp juróomi euh, ñetti téeméer ak lu tegu village. c'était une tournée de j'allais dire vérification de du travail qui est en train d'être effectué vous savez que le programme national d'électrification rurale mobilise à ce jour plus de 110 milliards et j'ai décliné dans les détails les différents euh, aspects de ce programme. Euh, au jour d'aujourd'hui, on est dans chaque département du Sénégal quasiment en train de soit de réceptionner des équipements, soit de lancer de nouveaux projets euh, structurants. Et dans, pour ce qui concerne Toubatoul, vous avez vu qu'il y a trois villages où on, avait, où on a mis en service l'électricité. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les populations ont accès à l'électricité. C'était une de plus de 50 ans. Les populations elles-mêmes l'ont affirmé devant vous. il y a cinq autres villages dont on, qu'on aurait pu mettre en service aujourd'hui, aujourd'hui dans le même département. Ça veut dire qu'au total, il y a huit villages qui ont accès à l'électricité nouvellement depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ici aussi dans le département de dans le dans la mairie, dans la commune de Noto, Ouidjama, il y a à peu près euh, cinq villages qui viennent d'être réceptionnés, en plus de ceux que le maire a énumérés devant vous depuis 2000, entre 2012 et maintenant, ce qui fait un total de à peu près 8 villages. Donc, de l'aveu même du maire, qui a parlé devant les populations concernées, c'est une révolution substantielle qui a été réalisée. Et cette révolution, elle ne vise pas le département de Thiès ou la région de Thiès ou le département de parce que je serais originaire de... <laughs> C'est pourquoi j'ai tenu d'ailleurs à aller au, Louga avant, euh, dans le Saloum, pour qu'on voie de manière significative où sont passées les ressources conséquentes dont on parle tant et qu'on dit que le président day wax rek mais en réalité c'est pas matérialisé. Vous voyez des villages dans le cœur du Sénégal profond qui ont accès à l'électricité. Au-delà de ce programme d'électrification rurale si on peut aujourd'hui espérer fournir l'électricité à ces villages, c'est parce que de manière substantielle, l'offre d'électricité, c'est-à-dire la production d'électricité par Sénélec, a été significativement améliorée. Rien que pour cette année 2016, sans aller dans trop de détails, rien que pour cette année 2016, 250 MW supplémentaires ont été réceptionnés ou vont l'être. En décembre, nous aurons 250 MW nouvellement installé dans le parc. En 2017, ce sera exactement la même Au total, en deux ans, nous aurons capacité de production nouvelle qui sera égale à que le président de la République a trouvé ici en Donc ça ça a demandé des ressources relativement conséquentes. Et quand on parle du secteur de l'électricité, on saurait terminer sans parler du transport. le domaine, dans le domaine transport également, des projets substantiels visant à mieux interconnecter le Sénégal. à le rendre uni et un, comme dit notre hymne national. Des projets conséquents de transport sont en train d'être réalisés. Euh, par exemple, on fera Tambacounda, Kolda, euh, Ziguinchor, on fera Kaulak, Tambacounda, etc. pour mieux sécuriser, mais mieux mailler le réseau et mieux arroser le Sénégal. Oui, effectivement, euh, le schéma qui avait initial, été initialement mis en place pour euh, apporter l'électricité dans le monde rural vivait à confier les investissements en grande partie au privé. Il s'est avéré que si on avait suivi ce schéma, on ne serait pas au taux actuel et on n'atteindrait pas de sitôt dans les décennies à venir les taux vise, les objectifs qu'on vise. C'est pourquoi le président a mis en place ce programme d'investissement par l'État lui-même. Et donc, il est naturel et normal que les, euh, j'allais dire, le système de facturation qui était basé sur l'hypothèse de l'investissement privé soit revu pour prendre en compte maintenant le fait que c'est l'État qui a réalisé les investissements et que le privé n'a pas répondu à l'attente. Et c'est pourquoi nos services vont travailler au cas par cas pour s'attaquer au problème parce qu'il y a une disparité entre les privés dans certaines zones qui ont effectivement atteint 97% de taux d'investissement et les privés qui n'ont même pas atteint 5%. Ça, c'est une question qu'on étudiera au cas par cas. Mais l'objectif, c'est que dans les prochains mois, nous pourrons être amenés à harmoniser les factures pour avoir la même, le même service, c'est-à-dire rendre les, les factures bimensuelles et faire en sorte que les tarifs soient les mêmes pour l'ensemble des citoyens sénégalais à peu près waaw dañu ñoon donc